fii ci Sénégal nag euh, ñoom doomi réew mi am na ca ñu ànd ak mbégte ci nganuk Obama euh, ñenn ñi ne daal euh, bu weesoo mbégte gi amul lu nu mën a xaar nak coow li coow li ci moom Obama ñu ànd ak ñoom ci micro Dissa Prera ak Atanaax Ba. xanaa bég kontaan je nit ku ñuul la. Ah. Afrique plus particulièrement le Sénégal amoon rapport yu baax ak président. Macky Sall donc je pense que ça peut apporter quelque chose de positif pour l'Afrique oui. victoire moom neex na trop vraiment ça nous a ça nous a beaucoup fait plaisir bon li ñu gën a neex nag moom mooy bon Obama ñëw nekk noir def deux mandats vraiment loolu neex nañu trop bon cette fois-ci nag deuxième mandat bi li ma bëgg mu def ko moom mooy mu teg la loxo africain yi jàpp ñu parce que il a un sang africain. Oh, au moment mooy awiniru maanaam bon pays Afrique yëpp bon parce am na xarañ bon bëgg na Afrique bon bëgg na bon continent africain européen. man je sais pas ndax nan lan lañ ci xaar mais xam naa daal li ma mënoon a wax en terme beaucoup plus simple mooy euh, puisque c'est un euh, fils d'Afrique kontaanoon nañ ci lool lool lool et on a on l'a soutenu jusqu'à la fin. man maa ngi xaar man lu may xaar mooy que ne guerre bi jeex partout dans le monde. dara ndax américains yi seen dëkk lañ nekk. Euh, di liggéey te place Afrique euh, gisuma ko foofu man dëkk naa amerique pendant vingt ans mais place Afrique sincèrement dañ ko néewal trop africains yi nag ñoom ñoo war a jël euh, seen fula seen fayda laaj ñoom li ñu moom foofu seen héritage. mu nekkoon ñenn ci doomu Sénégal seen gis-gis.